bon li tax ñu teew fii tey moo nekk ñu ngi ci teewee ci turu amicale des étudiants ressortissants de Kaolack ndaxte it dañoo constaté que ni ñun fi mu toll ni am na ñaari mois yu nga xam ne nii fayuñu ko te bailleur bi mu ngi ñuy teg pression que nii buñ ko fayulee tamit on risque d' être déguerpi maanaam dañ ñuy génnee kër gi te loolu tamit bu amee dina ñaaw trop ci lu nga xam ne ay doomu Kaolack lañ doomu Saloum lañ ña nekk ci dëkk ba bari na lool ci wuyu ay autorité yor na doom tànk ci gouvernement bi kon day jar tey ji buñ amee problème ñu wax ak ñoom ñu ñëw teew dimbale ñu ci parce que mënatuñ ko assurer financièrement. ndax wax ngeen leen. ñu dégg ku ci nekk ci ñoom bu ñu am numéro am ñu am mën a ñaan audience ñu ngi koy def mais parfois nit ñi duñu répondre parfois nañ la woo wala leneen leneen wax autorité rek kenn mënul xam ndaxte dañuy def ba sonn di xaar ñu leen a forcer la mais ñoom rek ñoo mën a comprendre xam ne seen doom ñoo fi nekk te sonn nañ sonn coono bu nga xam ne nii yaakaar naa amical yi fi nekk yëpp Kaolack moo ci gën a sonn te autorité booy lim tey ñi nekk ci Kaolack ñu ëpp fuuf ña nga xam ne nii ci yeneen région nekk kon day jaadu suñ soxlaan dimbal ci ñoom buñ ko laajee dimb lañu ci ndaxte mënatuñ ko. waaw lu weesu démb rek ñu ngi ciy waxtaan mun nañu fi mu toll nii bu ngeen ñu fayulee yeneen amical ñu ngi taxaw def demande te loolu tamit bu fekkee ñeneen ñëw nañ pour jël mën nañoo def mandat de sortie te boobaa dañuy perte amical bi tamit mën nañ ci am ay poursuite judiciaire te loolu gënaluñu mësul yomb ndaxte université bi boo xoolee ci maanaam ja dayoom li muy ci biir campus bi bëriwul léegi loolu lay tax ba amical bi tey seen jàmbaata rek moo leen fi téye pour ñuy dem ci ville bi di wut amical pour mën cee dëkkal xale yi nga xam ne ñoo door a ñëw mais ñun ñi nga xam ne ñoo ko jiite mënuñu ko suñ doole pos attanu ko tamit luñ ci mën ñu ngi koy wax lu ak suba ngoon pour ñoom ñu mën a nekk ci condition yi nga xam ni te dina mën a permettre seen condition jàng bañ a yàqu benn néeg boo xoolee ñu ngi ko tax xayma pour ñaar nit kese mais comme que université bi mënul loger ñëpp dañuy mujj obligé def euh, solidarité jël néeg bi dina jël ba ay fukki nit wala fukki lu ko ëpp diggante fii di dox ndax mën ngeen ko attan. waaw sori na lool te tamit nekkul lu nga xam ne ni ñëpp dinañ ko mën di dox parce que toll na ci ay ñetti kilomètres wala lu ko ëpp léegi du ñëpp ñoo am maanaam kattan bu nga xam ne dañ koy dox aller di ko dox retour te tamit comme ndaw nga xam ne door nañ ñëw amuñu bourse day métti ñoom lool chaque jour ñu bëgg koy dox loolu tamit dana métti lool ñuy sàkkuwaat ndimbal ci autorité bu baax a baax ñu taxaw ci lool